Sarr nag moo jotaat kon fauteuilam bu maire bu Guédiawaye nag cour suprême moo ko dogal ginnaaw rek ba ko cour d'appel nag dakkalee woon ndax benn recours bu benn conseil municipal rek dugaloon kon boobu ndogal nag dañoo xëy rek rafetlu ko ca mairie bu diwaanu Guédiawaye Cheikh Diaby ci ndimbalu Cheikh Atap Diémé. ay jotaat na meeram loolu nag gannaaw ba nga xam ne nag atu atukaay bu gën a kawe ci réew mi dogal na li ni mel moom teg na ci suuf décision bi nga xam ne cour d'appel jëloon na ko mu jëm ci nii la lii élection wu Cheikh Sarr décision cour suprême bi nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh Sarr rafetlu nañ ko bu baax. xibaar bu neex boobu day dégg nañ ko waaye ñu ngi ko dégg rek ci presque ñuy xaar nag ñu indil nu ko notification bi officiellement waaye ci biir xaar boobu ñuy wax suñu mbégte ci jotaat ci suñu maire di Cheikh Sarr di maire boo xam ni bi ñu ko falee yaakaar ju mag la ci population waaye amoon rawatina sax xale yi nga xam ni moom ci la bokk. yàlla defal na ko loo xam ne benn maire ci dakaar yaakaar na ba fi mu nekk nii dootu xaw ma dina ko am de mais dina yéex parce que maire bu ñu fal ñaari yoon moom mooy Cheikh Sarr. décision bi cour d'appel jëloon taxoon na ba ñëpp di mbamb géejuwaay coow li ne cour ba loolu taxoon sax liggéey bi xaw a tàgga témbe di xëccoo bu tar bu amoon ci diggante liggéeykat yi ba tax sax ñi ànd ak Cheikh Sarr ne loolu joroon na fa lii di liggéey gu tardé waaye nag terewul ba tey ñoom ñu ngi ñaax ki nga xam ne moo di Cheikh Sarr mu gën a góorgóorlu mu continuer di jàppale population di géejawaay di continuer si jéego yu mu yu mu doon dox di fexe ba nitu géejawaay jëm kanam géejawaay aussi ñu koy wane si à travers le monde di wax lii la fi maire Cheikh Sarr def. di fàttali ne premier adjoint au maire u Géejawaay nekkoon fii candidat ci poste maire bi moom moo déposé benn recours ngir ñu niilal nag lii di élection wu Cheikh Sarr mu jotoon ceeg ànd ak yenn conseils yi bëri.